أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ci istuwaaru yonent yàlla istuwaaru yonent yàlla luut luut ñoo ngi fi luuhu wootee ba sonn mbir yi metti ci moom torop am ay tartar am ay jafe-jafe bi mu amee ay jafe-jafe am ay tartar yëf yi gàllankooru dara mënta dox moom nu luut mu ne rabbi nsurni alal qawmil mufsidin yàlla yàlla nga ma dimbali ci yàqkat yi saala lutun rabbahu an yansura ala haulai alqawmi almufsidin luut taxaw na ñaan boroomam jublu penk yëkkati ay loxoom ñaan boroomam allahu subhanahu wa taala pour boroomam dimbali ko ci gaa yi nga xam ne ay kàccoor lañ pour yàlla def mbugalam seen kaw yàlla taw ay xeeram seen kaw yàlla mbugal leen lu sàkku na ci borom bi subhaanahu wa taala pour yàlla fay leen seen liggéey yu bon yi doon def seen kéeféer gi ak seen féttéerlu gi ne leen ko yàlla fay lu bon na leen yàlla mbugal ndax dañoo bew na leen yàlla alak ndax ay kàccoor lañ ndax ñoom feebar lañ boo xam ne feebar bi bu tasaaroo rek adduna bi yàpp kon nag na leen fi yàlla jëlee misaal bi lu doon joxe ci ñoom mooy yàlla ñii daal dañoo mel ne cër cër bu feebar ci yaramu nit cër bu nga xam ne dafa dee nuñ koy def dagg rek indi kon nag ñii na nga leen kuppati dindi leen ci biir société bi ndax dañuy yàq xeet bi istajaaba allahu duaahu yàlla nangu na ñaanam wa xaqaqa su'aalahu li mu doon laaj dëggal na ko yàlla tabaraka wa taala nangu na ko dëggalal na ko wa baasa malaikatahu ila ahli hadihi alqarya alzalimu ahliha yàlla yónni ay malaikaam ci dëkk bi nga xam ne ay kàccoor lañ ay tooñkat lañ dëkk bu bon bi muy Sadum yàlla yónni na fa malaaka yi pour malaaka yi wàcce fa mbugal mbugal goo xam ne dafa dëppoo ak lu bon lañ doon def borom bi subhanahu wa taala mu yónni malaaka yi malaaka yooyu daal di ñëw wàcc ci suuf daal di romb kër ibrahima alayhi salaam ibrahima yaakaar la ñoom ay dem indil leen lekk ak naan waaye malaaka yi lekkuñu waaye fa lañ ko bégalee doomam jooju tudd isxaaqa ñu xamal ko ne di nga am ñaareelu doom ci sa jabar ju njëkk doom jooju mu ngi tudd isxaaq saarata moo koy jur ibrahim xam ngeen ne histoire am passé na ñaata soxna la amoon ah ñaar ñaata doom la amoon benn yàlla nga koy may nii beneen mu nekk doom bu njëkk bi nu mu tuddoon ismail ñaareelu doom bi nu muy tudd isxaaq ñaari doom yooyu kan lañ ci rendi woon bisu tabaski ismail hmm intabihu ibrahima bu mu gisee gan yooyu mu jàpp ne ay nit lañ fekk ay malaayika lañ malaayika buy wàcc ci kaw suuf melokaanu nit lay yor mu dem indi ji lu ñu lekk lu ñu naan malaaka yi lekkuñu mu commencé tiit ibrahima commencé di waxtaan ak ñoom wa xaawala ibrahim an yujaadilahum li yuaxira al azab ala al qawmi lut ibrahima commencé di discuter ak ñoom pour mbugal mi yéex laalla baaduhum yuminuun amaana fi mu toog di dàggasante ak ñoom naan leen waaw yéen lu tax leen xaar tuuti amaana nangam nangam xëy na gaa yi tuub xëy na fii ak ay fan Ibrahima a ngi def loolu pour amaana lenn ci gaa yi danañ tiit dellu daal di tuub mbur mbugal mi bañ a wàcc seen kaw ndax Ibrahima xamal ne xam na ne malaaka saa yu wàccee ci kaw suuf rek mbugal lay indi walakinnahum afhamu annahu amrullahi wa annahu lan yu'min minhum ahad waaye ñoom malaaka yi afhamuhu xamal nañ ibrahim ne ko li ngay def xanaa xamoo ne ndigalal yàlla la yàlla moo joxe ndigal nit ñi dañ leen alak walan yumina minhum ahad ñii kenn du ci gëm yàlla ndax ay bandi lañ seen xol yàlla kaste na ko xatamallahu ala qulubihim ñii duñu gëm ay bandi lañ kon rek nañ leen faat rek qaala almufassirun lama xaraja almalaikatu min indi ibrahim wa hum jibril wa mikail wa asrafil aqbalu hatta ataw arda sadum ulama ut tafsir nee nañ bi malaaka yi génnee ci kër ibrahim te malaaka yooyu ñan lañ woon jibril la woon ak mikail ak israfil ñoom ñett lañu woon jublu nañ nag dëkk boobu tudd Sadum ñu jaar ci yoon bi dem ndeysaan waaye ba ñuy dem ñu ngi yor fi suwari sabaani xasan fi suwari subbaan xasnaan ñu ngi yor melokaanu xale yi góor yu rafet loolu la malaaka yi yor melokaanu ay xale yu góor yu rafet yu taaru ay waxambaane ixtiyaaran min allahi taala li qawmi luut yàlla nag moo leen jox ñu moo leen def ñu mel melo boobu lu tax dafa am lu yàlla namm ci mbir mi comme ñee góor la ñuy bañ a gis waxuma la góor waaye góor gu nekk xale waxuma la góor gu nekk xale mais góor gu taaru comme loolu la ñii bu ñuy dem nañ nekk ay góor yàlla def na ko pour lan iqamatul hujja alayhim yàlla def na ko pour du ñu am lay ndax bu ñu gisee góor rek dañuy tàqali ko seen furi fara allahu akbar ba ñu ne tëll ci dëkk bi lu seen leen daw gàttandu leen fekk jant baa ngi waaj a so lu ragal waa dëkk bi gis xale yu góor yi mu gaaw ak yiir leen ay xamul ñi ay lan lañ wa xasabahum basharan min annaas luut yaakaar na ñi ay nit lañ rek comme nit ñi ah nit naturel amul benn problème parce que li mu gis mooy nit gisul leneen fekk nag ay malaayika lañ intalaqa amaamahum wa jaala yucarridu lahum fi lkalaami laallahum yansarifuuna an hadihi alqarya wa yanziluna fi gayriha lu tàmbali na di waxtaan ak ñoom naan leen ah ayeen ay gan ngeen waaw xanaa xamu leen dëkk bi déedéet ah dëkk bi baaxul de léeg-léeg nga am gan pour gan gi xam ne fii waru fi mën a fanaan soo ko waxee ci ay wax day jóg dem ñibbi ah ñun de suñu fi daaxaat am na ñoo xam ne sax amuñ fu ñuy tëdd nga am gan bu indi ay saakam dégg loolu lan moo war nekk ci boppam ah ñibbi xam ne fi xeju fi dëkk bi de wóorul nga koy wax gan dëkk bi wóorul dëkk bi de bu ma sañoon gan du fi fanaan gan yi bu ñu déggee loolu lan lañ war a def seen bopp ñibbi lu tàmbali leen naa leen dëkk bi baaxul dëkk bi de bu ma sañoon gan du fi wàcc mu wax leen ko ay yoon fa qaala lahum fi ma qaala wallahi ya hula- ya haulai alqawm ma alamu ala wajhi al ard ahla baladin akhbasu min haula yéen sama gan yi maa ngi leen di yëgal ne musumaa gis ci kaw suuf dëkk bu gën a yées dëkk bi musumaa gis ci kaw suuf nit ñu gën a bon comme nit dëkk bi yoolu tag leen di wax loolu summa macha qalilan mu doxaat tuuti summa aada zalika alayhim mu delloowaat wax jooju dëkk bee ko bon nit ñee ko bon bu ma sañoon gandu fi wàcc bu ma sañoon sax gandu fi romb nu lu baamtu na loolu ñeenti yoon ci kanamu gan yooyu gan yi ne tekk rek mu jiitu jëm këram gan yi ne ci ginnaawam lu tax loolu mooy ñoom gan yooyu wa qad umiru an laa yuhlikuuhum hatta yashhada alayhim nabiyuhum bi zalik yàlla xamal ne malaaka yooyu wàcc balaa ngeen di mbugal dëkk bi na yonentu dëkk bi wax ngeen dégg ah léegi nag yonent bi ñaata yoon la wax yonent bi ñaata yoon la wax déedéet déedéet ñëw na Hmm. yonent bi wax na ko ñeenti yoon malaaka yi dégg te yàlla dale waxoon malaaka yi balaa ngeen di mbugal dëkk bi bàyyi leen ba yonent bi wax ngeen dégg ngeen xam nit ñi lan lañ dégg léegi nag yonent bi wax na kon léegi leer na léegi nag luut indi na leen biir këram moom luut ma ngay sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin waa dëkk bi sax gisuñu sama gan yi ñii de danañ mucc alhamdulilah du ma am kersa parce que ma am gan samay kër sama waa dëkk bi ni ñu bonee comme nag kenn gisu leen man rek mën naa te tëju ak ñoom kenn du leen yëg ba ma dalal leen ñu lekk naan def li ñuy def ma génnewaat leen ndànk ñu génn balaa may am problème imraata luut tadullul qawmu ala adyaafi zawjiha la moo tax ñu naan nit na am jabar ju baax dafa bokk ci dundu góor soo naree texe am njaboot gu baax même bu fekkee missionnaire nga même bu fekkee président de la république amal jabar ju baax am na benn président ci Afrique temps yee lañ ko jàpp gars yi lan lañ doon wax moo ko indil problème jabaram dégg ngeen léegi ñu ne jabaram moo tax jabar ju baax nit na góorgóorlu mu am jabar ju baax luut daal di tëju ak ganam yooyu balaxa luut wa duyufahu baytahu yóbbu na ganam yi ci biir këram yi fi manzilihi nazala haulaai alladina anama allahu alayhim bi xusni alwujuh ñooñu nga xam ne yàlla moo leen may seen xar kanam yi rafet seen jëmm yi rafet seen melokaan rafet ndax amul woon ci dëkk bi ay góor yu mel noonu ci taar ñoom nag dañoo yaakaar ni ñu ay góor lañ fekk du ñu ay góor ay malaayika lañ keroog ba ñu ñëwee kër luut luut tamit rek moo yëg ne ak ñaari doomam yu jigéen ak jabaram ñeenti nit ci dëkk bi ñoo yëg ne kër gi am nay gan mooy luut ci boppam ñaari doomam yu jigéen ak soxnaam ñeneen ñépp yëguñu ko waaye lu fanaane sant yàlla ci guddi gi naan yàlla maa ngi lay sant sutura bi ma sàng sakara lutun rabbahu wa hamidahu ala dhalik lut a ngi sant yàlla ndeke jabar ji rocceeku na ci suuf raat imlaatu lut haula idduyuuf junna jununuha ba mu gisee góor ñi ni ñu rafetee ni ñu taaroo moom soxna si mu ne lii de am naa occasion sama waa dëkk danañ ma gën a bëgg samay mbokk danañ ma gën a yëkkati su ma génnee léegi dem tasi information bi ne leen ñëw leen sama jëkkër am nay gan yu góor mu daal di génn di fëgg porte à porte fu mu fëgg koŋ koŋ koŋ ñu ubbi mu ne leen samay jëkkër am na ay gan ay gentleman ay xale yu taaru yu rafet bu ngeen leen gisee porte à porte la doon fëgg koñ dëkk bi ndeysaan gan yoo xam ne ñi dëkkuñu ci dëkk bi ñu ngi sama kër borom kër luut mu tas information bi ci biir dëkk bi lu toog ba ci yàgg rek mu gis mu dégg riir dégg coow lu xew gaa yaa ngi ñëw par ndànk-ndànk di génn si moom soxna si yemul sax rek ci tas information bi waaye dafa war diina yàlla tabaraka wa taala mu war borom këram mu tegtale lépp wax lépp leeral ko wax gaa yi seen melokaan seen taay seen taar seen taxawaay nu ñu toll nu ñu mel ñaata lañ lépp mu leeral ko ndeysaan borom bi subhanahu wa taala di nettali soxna soosu ndax mbon gi mbon ne moom ak jabaru firawna danañ dugg safara wa zakarahum allahu bi qawlihi daraba allahu mathalan lilladina kafaru imraata nuuhin wa imraata luut kaanata taxta abdayni min ibadina salihayni fa xaanatahuma falam yugniya anhuma min allahi cheyan wa qila adxulu nnaara ma daaxilin moo tax gis ngeen aaya bi ci aaya yi gën a doy waar ci alxuraan ci la bokk lu tax ñaari yonent kenn ki ci ulul azmi la bokk ay yonent seen jabar nekk safara mënul luñ leen dara fii ñun dañ naan kii papaam waliyu la rek kon seen waa kër yëpp àjjana lañ jëm même bu ñu jaamul yàlla wala ñu ne sëriñ baa ngi nii rek waa këram yëpp àjjana lañ jëm jabar yëpp tout àjjana lañ jëm wala ñu ne kilifa gaa ngi nii rek ñëpp àjjana lañ jëm xanaa bokk bu ñu jaamoo yàlla xanaa bu ñu baaxee bokk loolu sax dañ ko cee war a teg gis nga jëkkër su baaxee jabar bon kenn mënut a fexe jabar dugg safara su jabar baaxee jëkkër bon kenn mënta terees jëkkër dugg safara saar bii muy sa aaya bii ak aaya ba ca topp fii yàlla dafa joxe ñaari yonent fee yàlla joxe jigéen ju amul jëkkër ak jigéen ju am jëkkër jigéen ji kan mooy jëkkëram firawna firawna ku ko gën a bon ci kaw suuf am na te terewul jabaram mi ngi àjjana nuux kan moo ko gën a baax ci Sénégal am na ulul azmi min ar-rusul sayxul mursalin waaye doomam ak jabaram ñi ngi safara kon ku yebu jaamu yàlla ku jaamul yàlla rek perte nga yàlla xamul kii diw mooy papaam diw diw mooy yaayam wala diw moo jur diw wala diw moo yor mbooloom sàngam yàlla faalewul lool de bàyyi Ibrahima a ngi safara te yàlla neen Ibrahima sama xarit la ku yebu jaamu yàlla ku jaamu yàlla boo dee yàlla da lay lakk ak koo mën a nekk ak koo mën a àndal dégg ngeen lool ku yebu rek topp yàlla papa mënalu la dara yaay mënalu la dara wali yu mënalu la dara muqaddam yoo yonent yoo dara lañ mënul yowmal qiyaamati coow lee bari rek fii la yem àdduna eggul bàmmeel sax li kulli imri'in minhum yowma idin sha'nun yughni yàlla nee na yowmal qiyaam ku nekk am nga lool tal kon ku yeba nga jaamu yàlla mani yonent yàlla luuta ngi nii jabaram a ngi safara mënalu ko dara nuux jabaram a ngi safara mënalu ko dara wa jaahu qawmuhu yuhra'una ilayhi yàllaa ngi nettali nit ña ba ñu déggee information bi nan la ñu dikkee dañ doon daw di waaxu am na ñoo xam ne bi ñu ñëwee sax fëgguñu buntu kër gi dañoo tëb miir waaw nu ne të lu ne tëll lan la ñu ne ko gaay yi la ñuy seet eh anta taalamu maa nurid eh xam nga liñ fi wut génneel gaay yi waaw allahu akbar bi surat riyah comme ngelaw ni muy naawee intasara al xabar fi l qaria information bi tasaaroo ci biir dëkk bi ne lan luut am nay gan ka intisaari naar fi l xachim gis nga bu dëkk bi bu fekkoon dëkk bi ñax la dëkk bi commencé tàkk ngelaw li upp ci ay minutes balaa ñuy woo ñuy fay dëkk bi jeex ndax safara si noonu la information bi gaawee bi soxna si demee fëgg buntu kër yi ne leen sama jëkkër am na gan yu góor yu rafet ñëw leen rek gaa yi dégge wu ñu xabaar bi jàmm ñu départ daw affaire bi tas ci mbooloo yi ndeysaan lan la doon wax bi muy fëgg buntu kër yi di tas xabaar yi inni raaytu rijalan lam ara ahsanuhunna minhum wujuhan gis naa ay góor yoo xam ne gisuma ñu mel ni ñoom ku leen gën a rafet musuma ko gis ndeysaan fa halummu qabla fawatil awaan ñëw leen balaa temps bi passé ñëw leen balaa lut di leen rëccloo ndeysaan mu tas xabaar bi fekk moom luut mu ngi toog di leen ganale mu utal leen fu ñu fanaan mu toog di waxtaan ak ñoom gars yi di waxtaan ak ñoom moom waaye ñu toog ba ci yàgg rek nit ñi daal di dikk wa jaa al qawmu musri'in nit ñi ñëw fa xaraja saydina luut ila qawmihi fa talabuhu bi rijali salasa mu génn rek gis gaa yi encerclé kër gi waaw mu ne leen lu xew ñu ne ko gan yi ñetti gaa yooyu génne leen allazina gaa yooyu nga xam ne yastadifuhum fi manzilihi ñooñu nga xam ne yaa ngi leen ganale ci sa biir kër gi génne leen mu commencé di wax ak moom ñoom mu leen yaa qawm haulaai banaati yi hunna atharu lakum fattaqu llah wala tuxzini fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid